mbokk yi ñuy teewlu si euh, Feeling Dakar jaajëfal nañ leen bu baax am mbégte kontaan te di àndaat ak yéen si suñu différentes plateformes YouTube Facebook Instagram TikTok ak X ñëwaat ak tey si li nga xamante ni moom mooy rek ay information wala sax tey jii dañuy wax sax ay querelle wala sax ay waxi sew wala baatak tontu si ñaari nit yi nga xamante ne ay euh, nitu euh, média la ñu leen suivre bu baax a baax ku si nekk nag am fa nga féete bokkuñu camp yu ñu bokk muy différent la euh, mu mel ni ne rek ki nga xamante ni moom mooy euh, Ngone Saliou ak ki nga xamante ni mooy euh, jour Doudou Coulibaly moom nag ñoom ñaar dañoo faral lekk saa su nekk di am a ni ñu génn ay wax yi sew di dox ay baat ak tontu entre ñaari journaliste yooyu la waaye it rek nee leen si li nga xamante ni moom mooy journée sans presse bu ñu décrété rek ni ngi suba mu mel ni am na journaliste yi nga xamante ne dañ see daal di ànd waaye it am na ñi nga xamante ne dañoo def ñett ne rek journée toogoon nañ fi rek gis ay journalistes yu ñu dóor ay licence yu ñu nangu toroxal média yi ku ci mel ni Ayoba Faye daal na koy xamle waaye ñu gis ne ki nga xamante mooy Ngoné Saliou daal di def benn post euh, si page euh, Facebook am benn vidéo ne rek ñi nga xamante ne dañoo fas yéene jug suba ngir def journée sans presse ñoom nag bu ñu yaboo ñu daal di rek takk seeni loxo waaye buñ ko def benn fan nañ ko def ñett fan def grève dem place de la nation joxe ay conseil mel ni kuy kokkoli ñi nga xamante ñoom ñoo woote journée de la presse moom mi nag nga xamante ni dafa daal di euh, euh, toog rek euh, wax wax jooju joojulee ñëpp xam nañ ne fas yéenewul sax bokk si boobu lay xeex journée sans presse boobu nag lu mun a jur bëri na loolu si réew mi waaye lépp li nga xamante ne moom lañ ci sàkku muy rek à ce que juboo daal di am si presse bi ak gouvernement bu yees bi waaye sa ginnaaw loolu vidéo boobu lay ki nga xamante ni rek moom mooy doyen Doudou Coulibaly rek moom it daal di def benn post si page Facebook am ne rek bu ñu toogee bay xool wala sax di gis

ay ku ci mel ni Ngone Sadio Diop ndax noonu la ko cité ci poste bi di wax ni rek ñoom ay journaliste lañ réew mi mu ngi daal di doxee ak ay euh, boppam mu jàpp ne rek moom euh, dafa mel ni dafa xas ki nga xamante ne mooy Ngone Sadio traité ko de yow mi doo journaliste bokkoo ci journaliste yi ba tax Ngone Sadio moom it tamit rek daal di mer ba futu dem fi nga xamante ni moom mooy ci page Facebook moom it def benn post post boobu nag jaaxal ñu bari waaye ñu bëri ne Ngone Sadio c'est daal di ndax dafa wax yu ëpp ndax lu mu mënti doon Doudou Coulibaly mag la mat na ko papa wala sax mat na nijaay waroon na ko daal di respecté ndax wax na say wax yu ñaaw yu tegginewul ba sax daal di koy traité d'ivrogne maanaam mandikat ne ko rek na bàyyi ñi nga xamante ne mu koy faral di jël ngir muy daal di wax waxu dof ba traité ko sax de fou waaye it ñëwaat waxaat rek beneen wax boo xamante ne su ba dañoo jàpp ne rek saaga la mbokk yi nag li moo doxoon si diggante ki nga xamante ni moom mooy Ngoné Saliou Diop di journaliste sans limite ak ki nga xamante ni moom mooy Doudou lii di journaliste ñoom ñaaree nag seen coow yàgg na ndax nag du tey jii la tàmbale waaye journée sans presse bi da ko daal di wane mbokk yi li leen indiloon si xibaar di leen jox rendez-vous très prochainement waaye nag lépp lu toftal si ñoom ñaar yooyu leen dinañ koy daal di leen dégtal fii si euh, Feeling Dakar ngeen jëf